tarawlu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara tarawlu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li nu sampi daara bu leen ma tàngam lu bu ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki leen di tàngal <coughs> karaw du leen nu sant soxna jaara ngir moonu may tax nu sampi daara bu ma tàngam loo bu ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki di tàngal kon ñu dem auzu billahi min asheytaan bismillahi rahmaani rahim barkeb xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yéen ñiy bàyyi xel télévision Mouride TV ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu di leen balu ak koy ànd ak yéen nag ci liggéey Serigne Touba Cheikhoul Khadim saa su nekk ñu ngi waat nag ci dëkk bu tedd bi di Touba ci wetu jumaay ji rawatina fii ci kër sëñ Abdoul Ahad Mbacke Ibn Xarim Rasoul ñëw nag fekk fii waa daayira Ashabul Jannati di waa kër Soxna Jaara Buso soxna jaar bu so bu ñu ko waxee fan yi ñëpp day xel yëpp day daal di jàpp bis bi nga xam ne nii moom la ñuy waajal muy bisub màggaluk poroxaan loolu nag tax na ñi nga xamante ni ñoo di sëti soxna jaara lëkkaloo ci daayira bu ñuy wax asxaabu jannati seen yéene jëpp di liggéeyal soxna jaara ci anam yi gën a kowe loolu nag tax na ñu fekk leen tey jii fii ci kër sëñ Abdou laat ñu dajaloo ngir nag euh, waajal màggal gi ci loolu nag ñu ngi toog euh, benn jataay boo xamante ni ñu ngi ko séq ak Serigne Cheikhouna Bousso Cumbuleen nekk suñu wetuk euh, di borom xam-xam bu ràññee Serigne Amidoune Bousso itam nekk sëñ Amidoune Mbacke yitam moom itam nekk ci suñu wetuk euh, càmmoñ moom itam nekk kenn ci daayira bi ñu fas yéene waxtaane nag ay tomb yi am solo tomb bu ci jëkk nag muy cosaanuk daayira bi ak lenn ci ay jaar-jaaram sharafil anbiyaa wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سي محمد البشير إنجلي زيار دي لنيو دي نيو مبقو ينغا أندل دي نيو سرين حامد باكي ميغا خمني مملن بقل توك kaddu yooyu yëpp nag ñu diko ko ci ndigalu suñu kilifa euh, ka ca bobba di sëriñ Buso ibnu sëriñ bakke Kanni ibnu Cheikh dul Mbusoobe di njitul dairatu ashabul jannati hum fiha khalidun ñu di leen dalal nak ci pak bu sel bu laab ñu nek di kër Cheikh abdul Ahad mbacke ñu bok fi nek ak mbolo mi di bis bi nga xamne ci lañuy ziar ki fi nekkal Serigne Touba niñ ko baaxu def at mu jot euh, loolu yi nga wax nag laaj nga lu am solo lu mat laaj loo xam ne it daaira bi sawar na ci tontu ci ndax euh, liñ naan waxtu wu ida zahara sabab zaala al ajab lépp lu yéem nit ki rek ñaare bu xamee cosaanul mbir ma kiiwaan nga day dañ daayira bi ko xamul mana mën na laa yéem ci dayo bim am dimension bim amé waye bu sabab ya feñé nga xane Warna mëna tollu fi mu tollu warna ko sax mëna romb ndax jamono bu nek ñi ngi sentu mu romb ko ngir ay cadeau yu bayiko ci doomi Sëriñ Tuubaa daairatu ashabul jannati hum fiha khalidun daaira la bo xam dafa ubbi ay buntam ngir kep ku ci bëgga bok du luñ teunk ci bu sobe xëy na ñi ne ci bopp bi ay mbusoobe lañ ndax ñoom ñoo amoon xalaatu liggéeyal Serigne Touba te jaare ko ci soxna si jamono boobu 1980 1976 booba ak ren jii ñu toog war naa toll ci ñeent fukki at ñeent fukki at nag du lu ndaw ndax diir la boo xam ne lépp lu ko diire di ci gis ak jëm kanam di ci gis avancement di ci gis développement dañuy am yaakaar ci ne loolee lu dëgër la lu am ay ren la ndax ñeen fukki at mooy gàpp bi nga xam ne ab yonent sax bala ko suñu borom yonent da koo làq nga xam ne bu ko làqee rek jàpp nañu ne léegi weesu na ndaw toll na ci euh, at yoo xam ne war naa am dëgërug mën a yenu diis diis yi nga xam ne képp ku yàlla yabal na nga mën a da nga taseeg diis diis yooyu ñeen fukki at nag daayira bi am na ko ci ren sëriñ daam Bousso Maram mi fi nekkaloon sëriñ Massamba Kanni ci jamono boobu doonoon ilimaan ci jumaay Touba ji nga ne daana fi jiite waxtu juróomi eh, ci tànnuk sëriñ Abdul Ahad moom moo àndoon ak lenn ci ay doomam ak lenn ci ay rakam daal di am pas-pasub liggéeyal sëñ Bamba waaye jaare ko ci soxna jaara biñ dikkee waxtaan ak sëriñ Abdul Ahad fekk ko fañ ko fekk waxtaan ceeg moom euh, sëriñ Abdul Ahad daal di rafetlu xalaat boobu gis ne xalaat bu rafet la bu am solo la bu ko mat la mu daal di leen di tànnal aw tur ginnaaw bu mu leen laajee ba xam ndax am na aw ñu ne ko daayira bi amagul aw tur mu daal di koy tuddee daairatu asxaabul jannati hum fiha xaalidun daayira moom xam nañ mooy lan xam nañ mooy lan wala buñ ko waxee fii ñu ngi ci jublu mbooloo mu daje di boole seen doole ak seen alal ak seeni xalaat bokk benn objectif ngir liggéeyal seenub sëriñ wala ngir ay naal yu am solo alhamdulillah yahdikum allahu wa yuslih balakum yaxfir allahu wa lakum tur wi nga xam ne tànnal na leen ko nag muy ashaabul jannati hum fiha xaalidun kooku baati alquran la eh, la muy tekki mooy waa àjjana yëmul ci waa àjjana it waaye mooy waa àjjana ñi nga xam ne dañ fay sax dàkk dootuñ fa jug tur woowu la sëriñ Abdul Ahad tànn daal di leen ko tuddee ba noppi daal di adhéré wu moom mi nga xam ne moom lañ doon laaj ci ndigal daal di bokk ci mbooloo mi mbooloo mi nag tàmbalee foofe sëriñ bi ne leen na ngeen ko fonk te xam ne dana àgg fu ngeen ko foogutoon dana dem ba àgg fu ngeen ko foogutoon kàddoom googee nag bis bu set barke barkeelu kàddu ga di gën a feeñ ndax bis bu set daayira bi dooleem di gën a dolleeku mbooloom di gën a bari ay liggéeyam di gën a yaatu ay njariñam di gën a tisaaroo loolu danañ ci agsi sëriñ Abdul Ahad dafa continuer di ko pour poursuivre saa buñ ko siyaaresee mu jox leen ay orientation yoo xam ne da leen di gën a sawarloo ci daayira bi ak da leen di gën a teg ci yoon euh, ci loolu euh, am na at moo xam ne wax nañ ne biñ ko indilee ziar bi enveloppe bi ñu ko def dañ jee fàtte bind tur bi mu leen joxoon moo jugal boppam wut big dal di ñëw bind ko nee nag dee leen ko ci bind nee leen dee leen ci bind tur bi muy ashaabul jannati hum fiha xaalidun loolu kon dilum lum ci tur moom daayira bi gëm ne ñoom ñooy ñoom waaye nag gëm ne ñooy ñoom it xëy na du rek boo adhéré ci daayira bi dal di nekk nituk àjjana mën naa mën naa bari ay déggiin waaye daal jàpp nañ ni képp ku ci bokk moom <coughs> te soxna si nga xam ne moom lañ bëgg a liggéeyal euh, nga fexe ba soxna soos nga teg ci sa kanam def ko mu nekk sa sa royteef def ko mu nekk sa lépp ci aw dox yi nag ci aw jëfin euh, sikki sàkk nekkul ci ne moom da nga bokk ci asaabul jannati ndax dox yi mooy dox yi gaa ñi nga xam ne ñoom la sunu mën a wax na tege ci yoon wa te ku tege ci yoon wa rek bokk nga ci waa jana am benn at ñu wax ne euh, sëriñ Abdul Ahad jébbal nañ ko daayira bi fekk ko ci jamono bu xat ci mbooloo mu bari roj dañ bi bari lool sëriñ bi daal di jékki-jékki mel ni ku sëngeem ab diir daal di wax ne yéen de seen xat-xatloo bi ak raj-rajloo bi damay jox ëllëg yowmal xiyaam bu ñuy xat-xatloo di dugg àjjana wax loolu daayir asaabul janna loolu lépp nag di ñetti wax yu bokkul yoo xam ne benn bu ci nekk mën naa dëgëral mbir benn bu ci nekk it mën naa jox yaakaar mbir suñ daam buso moomee nag àndoon koog ñooñee mu ko àndaloon ñu koy ci kër yi di ko réunion di ko di nos di nocci di xàccandoo di dóorandoo di dem di siyaare ji poroxaan ndax at mu njëkk ma ñoom ñooñee jàpp naa ni benn oto lañu woon ndeem sax oto ba feesoon na moom lañ amoon dugg ca dem màggali poroxaan ginnaaw bi nag mbooloo mi di dolleeku ndax képp ku dégg waxi Abdul Ahad jooji rek Euh, bëgg dugg ci wax ju barkeel jooju ju am solo jooju waxi wali jooju mu jaral la nga daal di adhéré wu ci biir mbooloo mi nga xam ne maire yi nga xam ne ñoo ci bootu ay kilifa lañ ay kilifa lañ waa kër suñu champs yi boo ngi ci dégg nga bu ma maanaam li ma jub nag mooy seen dëkkaale ya mhm. waa kër suñu Mouhamadou Mourtada ngi ci dégg nga waa kër suñu Falloo ngi ci waa kër gu ne ngi ci ci waa kër suñu yi maanaam doon ay maire yoo xam ne fii may wax yow rek soxna Mominatou Mbacke Bousso nga xam ne Serigne Chouaïbou moo ko yoroon di waajuru Serigne Abdou Samad ak Serigne Fall ak Serigne Hamsat mi ngi nii toog di kenn ci maire nga xam day dajale ay addiyaam di ko indi noonu lañ baree doon lim bu baree bari boo xam ne dem nañ ba kàddu suñu bilaxat googu mën a wax ne dana àgg fu ñu ko foogutoon mel na loolu ma nga cee feeñ ginnaaw bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne Abdoul Ahad nekkatu fi it Serigne Abdoul mi fi nekkoon bi mu dikkee daal di renouveler kàddu suñu bilaxat ga ak bëggam ga ak yéeneem ja ànd koog daayira bi ci noonu daayira bi it ànd ak ñu ànd ak moom àndin wañ doon ànd ak Abdul Ahad wala ñu gën a dolli seen pas-pas ñoom it bi fi sëñ Abdul Abdul Xaadir jógee ba sëriñ Saalihu ñëw bi mu dikkee dafa wéyal loola wéyal loola ànd ak ñoom kem àndin wa sëñ Abdul Ahad ak ñoom waaye dolli ci nag jox leen ay ay ay ay tawsiyaat yoo xam ne ma ngi leen koy dénk sax ci bu ñu demee Poroxaan ndax wax nañu am na at moo xam ne fekke wu ma ko man waaye waa daayira bi ñëpp a ko fekkee eh, biñ ko jébalee sëriñ Saalihu da leen wax ne na ngeen na ngeen bàyyi xel ne day euh, foofee di poroxaan képp ku fa ñëw ngir jëmmi soxna si yéen ko war a berndeel moo tax soxna daayira bi it daal di jëlaat nag ay matuwaay ci wàllu berndeel foofee ci poroxaan yeneen yu yees yoo xam ne bokkut ak yi ñu amoon ngir màggale ko kàddu Sëriñ Saaliw boobu loolu nag moo leen poussé ci saa borom di leen dimbali ak kàddu yu barkeel yooyu di leen gunge ba mu àgg ci àgguwaay boo xam ne actuellement nii may wax ak yow daayira bi euh, yi mu am nga xamne mom moy ëblë geeyam tay ji moy bisub siar bi nga xamne bu fi Sëriñ Sidi mukhtar nekkon fi ci kër Sëriñ touba gi fi la ko mbolo mépp fekk siaré ko bu fi nekkut it moom mooy joxe ndigal num ko bëggee mbol daayira bi defé ko nona waye mom daayira bi dana ko siaré daayira bi dana siaré Cheikh mohammedul Muntaqa ndax Cheikh Mahamadul Sëriñ Musaa Basiiru lañ daan siyaar bu fi nekkoon Sëriñ Muntaqa ne fi daayira mom da koy siyaare ba lek lolu ci ay objectif am lu bok naka nonu soxna gaddu busu su na ci ñi nga xamne dana leen di siyaare moom it ci digalu Sëriñ Abdou Lahad la woon seen diggante ak soxna Mominatou ba soxna Gàdd nekkal ko fi wuutu soxna Momi ca lam daan def ñoom it ñu wuutal lañ daan defal soxna Momi ci soxna Gàdd ginnaaw bi it euh, euh, waa daare kaamil Sëriñ Tuubaa ji nga xam ne Sëriñ Tuubaa yoroon seen lépp daayira bi gis na ne ñooñu addiya ju leen nit jox rek Sëriñ Tuubaa jot ci direct dana fam ay ziyaaram di ko ko jox di ko defal daare kaamil ja ca Njaareem ak ja ca Poroxaan ziyaar yooyu yëpp nag bu matee euh, lu mu néew néew xëy na dana jege 10 million moom lim bi nag amul solo waaye ko toll ci leeral faw ngay tudd rek li tolluwaay ak yëpp bu ñu siyaaree ñooñu ba siyaar yi mat kaddu Sëriñ Saaliw googu mu leen waxoon ne na ngeen yëg ne fu nit ñëwee Poroxaan yéen a ko bi da koy dundal ba tax mu jëlaat yeneen matuwaay di waajal Poroxaan waajtaay wax ne jëpp ma ni danga dem ci wenn waañ ca Poroxaan fekk fa waajtaay wu mel noonu ndax dana fa am ñeenti fan talaata lay dem àllarba alxames ajjuma ñeenti fan yooyu bis bu set danañu taal téeméeri mbana defoon nañ ko daaw te ren mën naa yokk sax la bëgg a wax maanaam li may wax nii maanaam tolluwaayu daaw laay wax te ak jëm kanam lañ ci gis jamono ren ñi ngi séntu lu loolu waaye daaw ñoom bi ñu ko defee fan yooyu bis bu yàlla sàkk danañu taal ñeen danañu taal euh, téeméeri mbana añ taal téeméeri mbana reer loolu it yemale wuñ ko ci ñi nga xam ne dañoo bokk ci mbooloo mi waaye feneen fu waaye nekkit te nga xam ne soxna si rek la yëkkati tax laa jug boo amut añ amoo reer bu ko daayira bi yëgee saa bu noppee danañ la indil bernde la bu du loolu yi mbedd yi nga xam ne ci la nit di nekk danañ tibb ay bool di ko fa leen ko ngir màggale ko kàddu sëriñ Saliou googu yi mu leen waxoon liggéey boobu nag mooy liggéeyub daayiratu ashaabul jannati hum fiha xaalidun ñii ne ci bopp bi nag nga xam ne ñoo ko yilif yàlla dafa àtte ñu bokk ak soxna si liñ bokk ak moom waaye doon ay taalibe Sëriñ Tuubaa ni ko ñëpp doonee seen waajur yi doonoon ko ñoom bi dikkee doona ko di niti pas-pas kese ndax bu Bousso bu Bousso mi nga xam ne moo ne ci bopp bi sëñ Mbàkke Kanni mi waajuram euh, sëñ Bousso bee ko jur te sëñ Bousso bi ak soxna Jaara ñoo bokk ndey ak baay ñim ko àndalit noonu la demee ñoom ci mbokk kon ñooñu ñoo ŋànk liggéey bi waaye liggéey la boo xam ne nag fu waaye ba ak xeet woo mën a bokk ak maanaam euh, lakk woo mën a dégg dégg nga euh, boo dikkee te bëgg a bokk ci liggéey bi soxna Jaara daañ la leeral daañ la leeral condition yi nga xam ne moo ciy tax a bokk ak principe yi daayira bi am boo ko defee bu fekkee loolu mën nga caa tënku rek yow mi mujj dugg ak njëkk a dugg yéen a bokk benn atte daayira Ashaabul Jannati loolu mooy aw doxinam ñu ngi leen di sant nag ci yéen ñi nga xam ne ñëw ngeen ngir may ñu opportunité pour ñu leeral dégg nga ñu leeral principe yi daayira bi leeral cosaanam leeral ay tolluwaayam ay activité am ak li na ci kanamam tam di ko naal loolu ñu ngi leen ci remercier di leen ñaanal yéen it barke bi nga xam ne ñu ngi ko ciy séentu te Serigne Abdoulaye waxoon ko ci barke boobu yàlla na leen ko sa borom defal defal ko ci sa liggéey defal ko soxna si defal ko yéen nga xam ne ci ñoom ngeen bàyyi ko lépp lu ngeen dugg rek sunu borom may leen ci ndam dafa leen yokk ak barke yàlla mën na ko yàlla ko def ci barke Cheikh Al Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tabiahum bi ihsanin ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yu tedd yu sell yu baax yi ñi ngi leen di nuyu ci nuyób sunu borom subhanahu wa taala te di leen siyaare te di leen balwaq te ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu yàggal fi Cheikh Sidil Mokhtar te dolli ko ak wér ba lépp lu mu yéenee liggéeyal cheikhuna Ahmadul Xadim mu defee ya ko nu kawe njortam te ànd ko ak mbokki yi yëpp waaye di ñaanal itam ñi nga xam ne ñooy waa daayira Ashabul Jannati la ko dala ci sëriñ bu sori bu so ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp yàlla yàggal leen wéral leen dolli leen kàttan ba lépp loo xam ne yéene nañ koo liggéeyal Serigne Touba te fas ko yéene jaare ci soxna jaara sunu borom defal leen no kawe njor waaye di nuyu sunu mbokk mi nga xam ne di Serigne Cheikhouna Bousso moom Serigne falu moom Serigne Cumbuleen te di ko ñaanal sunu borom wér ak kàttan ak xéewal ba lépp loo xam ne yéene na ko liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal maamam ju baax ya Cheikhouna Ahmadul Khadim sunu borom defal ko no di delsi ci laaj bi nga xam ne mbokk yu baax yi laaj nañ ko muy wàccaay bi nga xam ne ñu ngi koy waaj jëmee ko ci barab bu tedd bi bi nga xam ne mooy Poroxaan euh, ñu fas ci yéene indi ay tontu euh, te xam nañ ne mbooloo mii di asxaabu jenati noonu ko Serigne naa leerale ci seenu ndorte ba seenu tolluwaay ñoom day ñoo xam ne liggéey Serigne Touba moo la ñor ba tax na saa buñ jógee Poroxaan dañuy dañuy andando di dajalo di wotente di fekkante kenn ku nek jëwriñ jeng jëwriñ ju mana don doon barab bu mana nek nekk ñu fekk la fa waxtaan ak yow ñaaxante ci diine waye soññante ci pass pass bañuy aksi ci bis bi nga xamne ci lañ toge di waxtaan ak yeen mu melne loola biñ jógee ba mm, ñetti téméri ñi ak fanwer ak juroom yi ñu am yépp Euh, buñ saa buñ jógee poroxaan kenn ku nekk daal di ngay takkaat sa laxasaay fas yéene waajalaat déwén kenn ku nekk di soññ membre yi nga xam ne ñoo aju ci yow su ko ñuy ñëw di waxtaan di dajaloo di yëkkati seen i addiya di dajale su ko am nañ kilifa yi nag am nañ koo xam ne mooy Serigne Cheikhouna Bousso moom Serigne Maram mooy cordinateur bi nga xam ne mooy coordonné mbooloo mi di leen euh, di di leen di leen di leen di di taxaw waajaay wàccaay yi ak di nos uh, mbir mi ba mu tegu ci aw yoon ba kenn ku nekk boo ñëwee xam li ci sa li ci sa wàll nga man koo jër sëriñ Seexuna moom buñ tolee ci jamono yi ñu toll nii nga xam ne di depuis bi ñu gàmmoo ba léegi moom daanaka man nañu wax ne tëddatut ci ay nelaw ba mën a nelaw ni mu ko bëggee ndax lépp xalaatam mooy nu ñu fas yéene waajale bis bi ba bis bi yéwén mooy waral saa su mu ngi woote réunion ca siège social ba te siège social mooy kër sëriñ Bousso bi Bousso mi ngi nek ci ginnaaw kër sëñ Abdul euh bis borom be ko seigne Abdul khader ba romb ko seigne Bàkka fadima talib wess bi nga xamne mom lañ tuddé talib Baqiya so jéggee do daan bi ngay njëkk a jéggi boo boo rombee boo rombee ko seigne Abdul khader gi mbedd mi ngay njëkk a jot tam tolo ci sa ndajor ab bitik nefa ci sa càmmoñ mbedd moomu ci ngay jàddi buddu keur bi ngay njëkk jot ci sa càmmoñ moy keur seigne buso bi buso fofu moy sé social bi képp ko xamne yalla dogal na xamoko won nga xamé ko noonu su ko defee ñoom itam dinañ fay dajale waxtu nekk di fa toog ginnaaw takkusaan ku nekk fa la nekk ba mu guddi ñu doog a dem su ko fee suñ dajee foofu sëñ seexu naa dana tànn ay commission yoo xam ne barab bu nekk jëwriñ ju fa nekk te aajo woo koo xam ne day ñëw ci yow ñu soññiwaat la ñu yebal la foofa nga dem ànd ak aw nit ngeen dem bu ngeen demee ngeen ñu dolli ñaaxante am ñoo xam ne ñoom dañuy àndandoo ñoom jëwriñ ñi dañuy àndoo seen membre yi fekk si kilifa yu baax yooyu ci barab boobu buñ nekkee ci loolu ba nga xam ne li ëpp ci addi ji yemu na ñoom itam dañuy daal di waaj nag dem ca barab bii nga xam ne mooy fii ñu nekk tey jii dajaloo waat fi ci bisub tey bii eh, li nga xam ne moom la mbooloo mi indi ñi nga xam ne dañoo amoon ay retard indiwaat seen la ñu manqué woon su ko ñu dajale ko doog a dem siyaar ji loolu ci biir loolu noonu ci biir loolu noonu xam nga Serigne Cheikhouna dana taxaw barab ba Porokhane nga xam ne jamono jii ñuy waxee ak yéen ña nga xam ne ñooy defari barabu Poroxaan ba ca euh, dàll yee nga xam ne fukki kër ak ñaar yi nga xam ne waa daayira bi am nañ ko fa ci ay kër muy fukki kër ak ñaar yoo xam ne am nañ ko fa yoo xam ne mbooloo mi saa bu ñëwee foofu la ñuy dal sëñ Cheikh yebal na fa aw mbooloo ñoo xam ne ña nga fa ña ngay baas ba fi ñuy waxee yéen nii baase xam naa tuuteetee mu àgg mbaar yi nga xam ne jotoon nañ ko faat defar itam ñoo ngi koy xaddaat di ko euh, saytuwaat di ko toppatowaat ba nga xam ne bu nit ñi ñëwee duñu am jaaxle fu ñu mën a dal ñoo ña ña nga ca loola waaye am na ci ñoo xam ne ñoo ko nekkal fii ñoo xam ne mboolem gis nga baas taxaw fii ñoo saytu baas yi fii li nga xam ne moom la ñu war a ci ay baas ak leneen ci ay defukaayu xam ne soxla nañ ko am na ne ña nga loola di ko toppatoo allahu rabbi bu ñemee ci gaaw ginnaaw suba ci lañ fas yéene dem yóbbu loola ñoom noonu sëñ Seexuna mooy taxawee loolu ak mbooloo nga xam ne ñoo koy jàppale ci ginnaawam ci loolu loolu mooy bokk taxawaay waaye suñu àggee ca Poroxaan jooju noonu foofa itam sëñ Cheikhouna buso mii ñuy wax ni moom sëñ Maram moom dafay gën a andiwaat beneen taxawaay boo xam ne taxawaay bu gën a euh, euh, dëgër la bi nga xam ne moo nekkoon ci euh, jamono ji nekkee woon tubaa di di di di liggéey liggéey bi booba dana am ay commission yoo xam ne da koy séddale ndax am na ci commission boo xam ne ku ñuy wax Serigne Bassirou Guèye ak Serigne Omar Bousso ñoom ñoo koy jiite ñoom commission boobu lay doon seen yitte mooy dañoo fas yéene di root di dem di indi ci eh, dal bi mboolem foo xam ne ab jëwriñ nekk na fa ñoom dañ la fa fekk indi la ndox ngir ndox mi ngay mën a jëfandikoo waaye am na ci commission boo xam ne ñoom itam lay doon seen yitte bu mooy fas yéene ñaa téeméeri mbanay eh, yi nga xam ne dañ koy taal cib añ eh, nañuy fexe ba téeméeri mbanay mat ñoom ñooy ñooy ñooy ñi nga xam ne ñoo koy taxawu raxas ko ba mu set teg ko ne ber ko su am na beneen commission boo xam moo toppaat ci ginnaawam mooy bi nga xam ne ñoom li doon seen nité moy fexe lola tégué ci kaw taal bi su tégué ci kaw taal bi diw ga ci wara a dem ah ñoko cey def ak lam wara andal ñoña moy seigne abdullah sëñ mom seigne Ahmadou ak seigne abdullah Mbacke mom seigne Sam Aslo ak ak ñi nga xamné ñom la koy ah seigne mustapha mi nga xamné moy seigne mustapha Moustapha Makarim ta mo fété Dakar ci jamono ji bu ta téro ba léegi dootu delluwaat Dakar ray nek di taxaw liggéey bi and ndok seigne cheikhna momi tam moy saytu duguma buñ ko duggé ba ñew moom lañ koy teg ci loxoom lépp lu ñu a taal mooy génne bés ba na leen tey ji lii la ñu war a taal ci téeméer mbaane yi lii la war a ànd jox leen ko su ko fee am na ñoo xam ne ñoom itam buñ ñu ñoom seen commission mooy buñ toggee ba noppi nag lii seen warte mooy jël eh, cin ya teg ko ca oto ba yóbbu ko eh, ci biir dal yi ndax dal dafa sore ak waañ ba nga xam ne moom la ñuy toggee loola sëñ ateex buso ak ñi muy àndal ñooy saytu ñooy ànd ci oto bi di ko di ko yëkkatee ci taal yi di ko teg ci ko oto bi di ko yóbbu ci bokk yi kër gu ci ne am na ñuñ fa teg ñoo xam ne ñoom itam ñooy séddale añ ba ñooy séddale reer ba foofu bu dee kër gu ci ne sëñ Abdou Lahad Bousso sëñ daam moom itam am na ci kër gu muy féete moom ñi muy àndal sëñ Amidou mii di wax ak yéen ak sëñ Moustapha Bousso ak sëñ Ateex am na kër gu muy féete sëñ Baye Serigne Bousso itam am na kër gu muy féete nga xam ne noonu lañ koy séddale ba kenn ku nekk maanaam liggéey bi mënoon naa gën a diis waaye noonu tax mu xaw a woyof woyof boo xam ne kenn ku nekk dana ci mën a da nga mën a liggéey soxna si ci xidmatu ba noppi coono bi ci waroon a gàlloo du ci gàll du ci du ci du nekk su ko noonu nag nga xamante ne noonu laa waxoon ci ginnaaw nag juróom ñetti téeméeri meer ak fanweer ak juróom mooy yi nga xam ne moom la ñu am kenn ku nekk jëwriñ la maire bu ci ne mbooloo nga nga jiite te gis ngeen seen bët leen may ndax gis ngeen ñi ngi ñëw par ndànk kenn ku nekk da ànd ki nga xam ne moo moom moom nga àndal euh, di ñëw ci barab bi su ko fee ñu ku ku yàlla dogal nga bëgg am lu mel noonu nga xam ne da ngaa bëgg doon jëwriñ ñi ngi lay woo ndax liggéey la boo xam ne liggéey Serigne Touba la ñun ñëpp ci bokk yam fi ñu lay woo mooy siège social ba mooy fi ma waxoon léegi ci ginnaaw mooy kër ginnaaw ko Sëñ Abdou Khadir te tali bu bees bi nga xam ne moom lañ tuddee tëddi bàq ya booy boo boo ko jubloo boo boo jógee ci jumaa ji bala nga àgg ci dóor daan bi mbedd mi ngay njëkk a jot ci sa càmmoñ foofu ngay jàdd buntu kër bi ngay njëkk a jot ci sa càmmoñ mooy ko sëñ Bousso Bousso boo agsee foofu den ña la guidé des na leen jox ay numéro yoo xam ne tam bu soob yàlla ku ci woote incha allahu rabbi defe naa ne da jot bok yooya bañ man laa gën a leeral lu gën a leer li nga xam ne moom laa su dee ci numéro téléphone yooyu boo boo am na carnet boo xam ne su bu yàlla dogalee nga bokk ci mbooloo mi doon jëwriñ dinañ la jox ab carnet boo xam ne ñoom yow yaa koy féete ñoom ñu féete benn boo itam danañ ci def numéro yi may wax ji wax sax danañ ci def yenn waaye dañ la jox itam carte jëwriñ boo xam ne sax boo ñëwee di jëwriñ lépp loo soxla ci ci ci ci ñoom danañ la boole koo xam ne dana la guidé ba li nga bëgg li nga bëgg nga mën koo am ci coono du ci nekk loola te dana am su ko defee itam su ko su su su ko defee nag bu yàlla dogalee loolu lépp di am ku woote ci numéro bii may bëgg wax ni muy numéro téléphone Serigne Bousso bi Bousso euh, moom mooy 77 663 24 74 577 563 24 74 mooy Serigne Bousso Bousso mi nga xam ne moo jiite assemblée janat bi ki nga xam ne mooy secrétaire euh, bi nga xam ne moo topp ci mooy mooy secrétaire bi nga xam ne mooy saytu liggéey bi lépp luy dugg lu ne ak lépp luy génn mooy ki ko yor mooy Serigne Bassirou Bousso di di di seen di seen di jëwriñu sëñ Cheikhouna mi nga xam ne mooy coordonnateur bi nga xam ne lépp luy doxal liggéey bi ñoom ñooy ñiy jiitu ci liggéey boobu mooy Serigne Bassirou ku ko soxla itam boo wootee ci 77 641 63 22 soo ci wootee 641 63 22 77 641 63 22 mooy Serigne Bassirou Bousso waaye boo wootee Serigne Cheikhouna Bousso mi nga xam ne mooy coordonnateur bi ci 77 637 11 26 moom itam incha allahu rabbi da nga da nga ko jot dana la leeral 77 637 11 26 mooy Serigne Cheikhouna Bousso mi nga xam ne mooy coordonnateur bi waaye bu fekkee lu mel ne Ndakaaru la itam soo wootee ku mel ne Serigne Abdoul euh, Serigne Moustapha Bousso Makarim moom Serigne Bousso Bousso nga xam ne moom foofu la féete nga xam ne da ngaa bokk bëgg a bokk moo xam da ngay kenn nit koo xam ne da a bokk dinañ la booleeg benn maire boo xam ne jege na foofa nga mën a bootu ca moom bu dee da ngaa bëgg a ber def jëwriñ itam dana la dinañ la guider teg la ci aw yoon ba nga mën a am euh, carte mën a ami ne ba mën a woote di di ñëw di verser ci barab bi nga xam ne mooy euh, fii fii siège social bi boo wooy sëñ Moustapha Bousso Makarim ci 77 563 05 23 77 563 05 23 moom itam da nga ko jot incha rabbi dana la eh, giddi oh, teg la ci aw yoon ba nga mën a eh, bokk ci ci ci ci liggéey bi waaye soo wootee itam ba ci Ndakaaru itam soo wootee Serigne Abdoul Ahad bu Serigne Maram moom itam dana la da ko jot incha allah dana la giidee ba nga mën a bokk ci liggéey bi ci 77 660 21 27 77 660 21 27 incha allahu rabbi dana la oh, woo bu dee ci Europe it Italie am na fa moom itam yooyu yëpp yi ma ko waxee rek soo waat soo wootee dañ la wax bara bu ne ba nga féetee ka nekk foofee dinañ la boole ak moom nga mën a àgg soye ca moom ànd ak moom liggéey bi ñu bokk ci ñu bokk liggéey bi ba liggéey bi yembu liggéey bi daal mu ngi nii liggéeyu Serigne Touba la boo xam ne euh, noonu ko sëñ Seexuna junjee woon léegi ne waxoon sëñ daat waxoon sëñ Serigne Sall waxoon ne fee de Porokhane ko fa ñëw yéen a war a joxub dund moo tax ñun ñii ñu buñ àggee foofa kenn ku nekk ci ñu da ngay takk sa laxasaay xam ne loo am ci Serigne Touba ci soxna si moo tax nga euh, moo ñu ko waajale bañ bañ mën koo jëriñoo te dara joo man a am Serigne bi la ko jox ñu delluwaat ci foofee nga xam ne mooy poroxaan futteeku nag daal di fay gën a ko ay doon ay donga daal di yeesalaat suñuy laxasaay nag parce que ne di togg di joxe ba ba ñuy fay jugee nga xam ne buñ tàmbalee ci talaata ji nañ taal téeméer ci añ taal ko ci reer euh, def ko ci àllarba ja def ko ci bis bu mag ba Euh, noonu ñu ko waxee ci lañ ko defee woon daaw noonu mu ko waxee woon léegi xëy ngi ñaan ak di yaakaar ne faw dana yol dooleeku ndax mbirum sëñ Tuubaa moom démbam ju nekk tey day gàccal démbam moo tax loolu ñu moo ñu gis ne loolu itam day feeñ ci mbooloo mi ndax euh, ñetti téeméer ak fanweer juróom yi ma la wax nii fi ne ren ji juróom yooyu dolleeku waaye ñetti téeméer euh, ak fanweer la woon ren ji dolleeku kan na juróom ba léegi nii may wax ak ñëw am na ko woo sëñ Abdoulaat mii na ko démb waxtaan wi geen doon waxtaan dégg naa ne damaa bëgg a bokk si waat liggéey bi doon jëwriñ kon li ñu sëñ Tuubaa waxoon ne sama tey ju ne day gàcce sama demb loola ñu ngi koy gis ci mbooloo mi ñi ngi ñaan suñu borom gën leen a taxawu gën leen a dooleel gën leen a jàppale ba lépp loo xam ne yéene koy yéene liggéey sëriñ Tuubaa suñu borom defal ko lu kawe njot télé bi itam nekk télé boo xam ne day télé monde entier fi waaye mën a nekk di ko mën a jot te lépp di doon liggéeyu Serigne Touba waaye lépp di doon lu tege ci lislaam waaye lépp di doon loo xam ne suñu borom subhanahu wa dana ko nangu dafa leen mucc dafa leen xéewal ba yéen itam ngeen am seen yësi bopp ba am loo xam ne faaw xoon na sax ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci liñ am ba ngeen ba ngi ci daraje Seexuna Ahmadou Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu Serigne Mahmadan Mbacké yaakaar naa ne Serigne Amidou Mbacké waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu sëñ Hamidou Mbacke yaakaar naa ne euh, kaddu yi leer na munu woon ñàkk comme ni mu ko waxee rek képp koo xam ne nii rek bëgg nga tàbbi ci daayira bi yaakaar naa ne euh, day firndeel kaddu yi sëñ Seexuna bu sa waxoon léegi ne daayira bi tëjaluñ ko kenn kon képp koo xam ne ne bëgg ngaa dugg ci daayira bi rek wala nga bëgg ci am ay information man ngaa woote ci numéro yooyu waaye mu nekk itam daayira boo xam ne nii la def poroxaan mañ nañ ne mbooloo mu benn mbooloo defu ko poroxaan ndax nag euh, ki nga xam ne ni moom lañ koy defal da ko jar a defal muy Serigne euh, muy euh, Soxna Jaara Buso di waajuru Cheikhul xadim ñu jotoon ndigal nag ci sëñ Abdoulaat sos daayira bi kon yaakaar naa ne daayira boo xamante ni daayira bu fasantikoo la ci réew mi ak bitim réew rawatina ci Touba ak li ko wër kon ci waajtaayu màggal gi loolu moo taxam na ñëw fii tey ci bis bi nga xam ne nii ci la ñuy jëbale seen i euh, wala ci la ñuy def seen ziar ci ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Sidil Mokhtar di ñaan rek lépp luñ fa euh, def rek euh, ci waajtaayu ak diiru Poroxaan suñ borom nungu ko barkel ko def ko addee soxna jaara boole ko mboolem jullit yi rawatina murit yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu laaj am na solo lool tout d'abord ñu wara sax ñëk nuyo li wax a'udhu billahi min mayli li ghayri ridha, wa min sududi amma sunna aw furida ñu ñaanal Serigne sidil Mokhtar suñu borom may ko fan wu gudd wa ande ak wéru yaram ba lim bëgg liggéel Serigne Touba lepp mu liggéey ko di leen nuyu di nuyu wa Murid TV gep ak mbolam ñi nga xamne ñi ngi top Murid TV laaj bi amna solo lol muy mi nga xamne ni lañ wajale communication bi ak culture bi wala communication culturelle bi loolu mooy ni nga xam ne noonu la ñu war a waajalee rek bis bu mel nii ci daayira bu mag bu toll nii di daayira boo xam ni ay junni junni nit ñoo ci bootu ndax xam nga daayira bi fii ñuy wax ak yow bokk na ñetti téeméeri daayira ak fanweer ak ñeent. te amna ñu woté né dañoo bëgg a bokk ci ay daayira yo xamné ne bindaguñ leen motax limalé wuñ leen waaye li nga xamné bind nañ leen ñuy indi seeni addiya toll na ci ñetti daayira ak fanwer ak ñent ñett téméri daayira ak fanwer ak ñent yoy daayira bu ci nekk dafa boot ay mbolo ay téméri témér kon ay junni junni nit ñoo bootu ci daayira ashabul jannati bi kon daayira bu ni mel ku ko yor war nga ko waajal bo jëmee ci bis bu mel nii muy bisub soxna jaaratullahi mariama buso war nga ko waajal ci communication bu baax Euh, xamal nit ñi lan mooy daayira bi xamal nit ñi itam lan mooy solos liggéeyal soxna jaara ndax xam nga daayira bi ci li muy dox mooy liggéeyal soxna jaara te liggéeyal soxna jaara xidma la li may faral di wax nag mooy àdduna bi lëj na problème yi bari na crise yi bari na te loolu benn solution la am ci àdduna te solution boobu mu ngi ci njàngaleem Serigne Touba solution boobu xidma la tudd xidma la tudd kon bu ñu bëggee liggéey lijjanti àdduna bi ñu ngi ko mën a lijjantee ci xidma euh, kon daayira la boo xam ne daal danañ dem ci rajo yi ak ci télé yi ak ci euh, mboolem site internet yi nga xam ne ñi ngi dox lu ci mel ne Murid TV yi euh, ñu ñu amal fa ay jataay yoo xam ne dañ fay xamle daayira bi kañ la sosu ak ci lam lay dox ndax xam nga daayira bi ni ko ñoom suñ Seexuna bu ki mu leen waxee 1976 la juddu mu hmm, ngi sosu ci kanamu Cheikh Abdoul Ahad borom ëtt bi moo sañ ci daayira bi moo ko xaaral aw turu ci ubbi gum ubbi ab kaamilub alxuraan ca daje bu njëkk bam njëkk a dajeek waa daayira asxaabul jannati listixaar ga mu yam ci ulaayika asxaabul jannati hum fiha xaalidoona nga xam ne alxuraan moo ko joxoñ wax ko ni muy tuddee daayira mu tuddee leen asxaabul jannati wax ne ku ci bokk bokk nga ci waa aljanna ba noppi yëkkati ñaari junneem teg ni xaaral ma teg ndax ma bokk ci waa aljanna man itam kon daayira boobu ku ko am jaadu na nga yaatal communication bu baax a baax jaadu na itam nga expliquer nga expliquer leen ko ci façon boo xam ne mooy bi gën a clair ndax ñu mën a comprendre dëgg-dëgg daayira bi ndax nit itam boo koy woo di ko laaj alalam ndax daayira bi itam looloo ci solo moo koy doxal mooy teg nit ñi loolu suñ seex genn faat mu wax ci lu am solo mooy nit boo koy laaj alalam da koy teg lu mu mën te di ko dugal fu mu xam kon yooyu yëpp ci biir daayira bi da ciy leer bëgg naa itam sànni ci tuuti kàddu loo xam ne suñ seex naa ñoom wax nañ ko ñu gën cee yokk yokk dara rek mooy at mu jot siyaar yi ñu ciy amal Cheikh Sidi Mokhtar dañ koy siyaare dañuy siyaare Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax Serigne Saliou moo wax waa daayira ashabul jannati ne leen na ngeen xam ne Porokhane ku fa ñëw yéen ko war a telal kon na ngeen fonk teraanga yi ak dalya wax ne man Serigne Saliou su ma doon ñëw Porokhane di màggal si ci yéen lay dal loolu wax nañu ko ba tàyyi kon Cheikh Mouhamadul Mountakha la muy def Porokhane ñun ñoo waroon a dem ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe yi dajale lam ci war a def lépp dem ba ci moom def ci lii defal ñu ci lii yow kilifa nga sa alal waru cee dem ndem nag sunu borom dëgalul am ñu am kattan gi ba mat sëkk danañ yëkkati ab barkeelu boo xam ne dañ koy barkeeloo ci la muy def ci daayira bi kon danañ dem ci moom siyaare ko bu ñu fa jógee siyaare daaray kaamil bi nga xam ne ñaar fukki nit ak nekk di jàng alxuraan waxtu juróomu jot nga xam ne sëñ mag bi moo moo ko digle woon te jamono yam nekkee Murtani ba jamono ji muy dox am na daaray kaamil ju nekk njaareem ju danañ leen siyaare am daaray kaamil ju nekk poroxaan ju ni mel dañ leen ci siyaare li ci des ñu boole ko yóbbu ko poroxaan def ci ay bernde yoo xam ne ñoom suñ amidun leeral nañ koo du ma ci si waaye bis bu yàlla sàkk ci gàttal danañ taal téeméeri mban a añ téeméeri mën reer yoo xam ne dara du ci desaat te lépp ci gan yi asxaabul jannati yi lay dem maa ngi leen di nuyu yéen ñu tedd ñi fi ñëw itam di ñu siyaare ci fii ci bisu tedd bii ci daayira maam jaar bu soxna Momi Touré ma di leen xamal ma ne maanaam soxna maam jaar rek ma ñor ak maam borom Touba Cheikh Fallou Mbacké maam borom Touba ak waa ndax sëñ Fall mooy sama wasila sëñ Touba xam nga loolu ma la wax waaw waaw sëñ Fall léegi bàyyi laat bàyyi na ma ma nekk jëwriñ daayira maam jaara ensemble jaan ci bii daayira maam jaara ay ñu war a mat fukki nit def nañ ci sama ginnaaw ma wëlbati ko Berlin ba kenn ku ne tey yaa nga ci dañ lay fekki may ànd ñoom ak ko duggéej mi di dem réunion kon sama daay daayira bi ñii ma ko àndal nag dañ ma bëgg lool dañuy samay sët di samay sëriñ muy waa Mbusoo bi ñu waa Mbàkke jumaa ji jëwriñ laa ci alxames bu ne mi na naw mi na mi na naw dana fekk ma fii ànd soxna fii ci jumaa ji kon ma nekk jëwriñ ci jumaa ji nekk jëwriñ ci daayira Maam Jaara waaw lool moo nekk sama yitte mënatuma dem ci yenn xew daal xew yi daal mooy jumaa ji da Porokhane waaye nag jëwriñ ji dafa yàgg de ndax fi ko bàyyi laat bàyyi ma nekk jëwriñ maam jaaratu laay di jàpp nag defaat ay di defaat ay jëwriñ ndax soxna si jàll nañu ko ba ba ba ba ba café gii ku fi naan te sama café ngeen di nga naan it café ak maam Jaara ak maam Xaadimu Rasuul façon ko yéene taxal di ko def waxtu wi ne bu ñu fi jógee ñoo nga jëm Poroxaan ci mberdee la itam nga jóg jëm Poroxaan sëñ bu tedd bi dinu jàppale sëñ sëñ sëñ sëñ laa jàppale ci fu nu fi dem mu fekk nu fa la waar na du baax a baax ci ci ci ci ci maam xaar yi ak maam maam borom maam maam soxna maam jaatu lay maam kon noo ngi leen di sant bu baax léegi soxna maamul la wax xam nga mag gi ñëw na mënatuma wax daal waaye yàgg naa ci ci daayira bi teraanga yi it fas naa yéene duñ ma jox danaa ko àndaat ak ñoom indiwaat ko maam maam xaar yi maam jaatu lay kon soxna moom yan soññee ngay jox ñi nga xam si mooy sa mbokki jëwriñ ñi nga bokkal daayira Ashaabul Janna xanaa soññee nii ma def rek bu ñu wootee danaa ñëw lu ma am danaa ko ku ma am danaa ko ñëwoon dem waaw soññee bi waaw fu ñuy wootee bala fu ñuy wootee danaa fa njëkk mbaa kenn du ma te képp ku aju ci may dana ñëw ah, muy fi ak jumaa ja mi ne naw day fekk ma toog maa kodd gi mi di xaar julli liggéey bu noppee dem ca waar wa ci bi nga xam ne mooy Massaboul Jinnaati fii ci kër sëñ Abdou Lahad Mbacké naka ngeen di doxalee liggéey bi ak ci yan anam ngeen di soññi soxna yi ci waajal li nga xam si ni mooy màggalu Poroxaan bismillahi rahmaani rahim ausu billahi mina sheytaani rajim laa hawla wala quwwata illaa billaah barke Sëriñ Tuubaa barke soxna Jaara Buso ni ñuy liggéeyaale ni ñuy liggéeyaale soxna Jaara ci soxna momi bu seum mi mom Serigne soñ moom tay ci war di nu ko liggéeyloo nu fas ko yene and ak mom di ko liggéey ba aljana yal na yeex liggéey bu rafet ndax kenn ku ne sa bop nga liggéey kenn liggéeylu fi ne soxna momi mi day jambar rek di nu yobbu ci yoonu soxna jaar bi waye kenn defalul kenn ku ne sa bop rek ngay def ndax Serigne Saliou wax na ne adina ñaari bi rek a ci nekk sa biiru bop bi bayiko ak sa borom sa biiru bàmmeel bi loo fa defu do fa li nuy dawal soxna jaara nak mom lañu fa siyene di ko def ci sun biiru bàmmeel ba aljana ken defalut ken dara soxna bu se nak yalla na fi yag yalla na fi yag ta wér amna na ku ko masa wax ne ko man dab daay ko sa bi dama beggon nga jox ma wallahi ma tatis li koko mbokam ko maa ñom ba aljana lolu nak la bëgg mu continuer man ma bu sa Mbàkke mi ci nekk fii ne de ba ma ci dara fasna ci yeneen nekk ba aljana